maa ngi tudd Abdoulahi Lam laa tudd euh, jiite mbooloo mi ñu tuddee Jamaatul Rahmaan ci Sénégal ñëwoon tey fii Mérina ngir euh, jaale si euh, sunu waajur sunu kilifa Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim nga xam ne kenn la ci kilifa ay lislaam ci Sénégal borom bi subhanahu wa taala ci ndogalam mu wàccee lii tey ci réew mi yëpp wàccee ko fii ci Madina mu bokk ci sunu warugar bu ñu lislaam sant bu lu mel ni xewee ñu ñëw jaale si kon dañu ñëwoon jaale si di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa axlifna xeyran minha di ñaanal sunu kilifa gi fi jógee yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na yàlla wuutu ko gannaawam ci njaboot gi yal na yàlla leeral bàmmeelam yal na yàlla def bàmmeelam rawda min riyaadil janna yal na ko yàlla dëkkal jannatul firdawsil aala ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin wa hasuna ulaika rafiqa sunu waajur wi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass fa nekkoon nit koo xam ne ku nekk Kaolack ku ne xam nga ko ku nekk Sénégal xam nga ko mu am ay dimension yu bari bokk ci ay dimension am nit la woon koo xam ne ñi ko xam xam nañ ne ku effacé wu la euh, xalifa yi ko jiitu yëpp dafa nekk ci seen ron liggéeyal leen comme ni mu liggéeyalee waajuram bu tedd Cheikh Ibrahim bañ jógee fi mbir yi agsi ci moom maa ngi wax sànq rek ne ku xam Médina xam nga ne bu naan këram di julli du jaar bunt kër la Abdoulaye jaar ci baye bi dem ci jumaa ji ndax mbooloo mi ko topp day wiire ci ginnaaw dem julli ji loolu am na lu rëy lu muy tegtale maa ngi wax rek démb ci benn émission dafa nekkoon nit koo xam ne euh, du sëriñ boo xam ne taalibe yi ci lay wér di dund waaye dafa yor liggéeyam yor ay toolam yor commerce yor lu bëreem li nga koy fekk sax ci dëkk bi bariwul bu amee wér mu ngi ci tool ya daaru mbitéyeen fa lay nekk waaye dañ koy jox xaalis mu seddale ko ba mu jeex mu jëlaat ci poosam yokkaat ci kon sëriñ la bu doon dundee ñaqam ndax loolu mooy li tabax lislaam yonent fa samta nee na yonent yàlla daawud dafa daan dundee ñaxam te loolu mooy li gën moom noonu la meloon euh, moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla xare ko aljanna waaye itam di jaale waa Mérina yëpp di jaare Sénégal yëpp di jaale xalif bi toog muy Mouhamadul Mahi Ibrahim di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla oyofal yan bi ci moom euh, di jaale kër gi yëpp di ñaan yal na fi yàlla def jàmm def ko ci senegal yëpp mbooloo mi fi teew bëri na waaye bésu jaal rek la ñu ñëwoon joxe sunu njaal comme ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.